sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey auzu billaahi mina bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mbooloo mu tedd mi sëriñ bi Ndiaye noo ngi lay nuyu ci sa bis bu tedd bii ci sa bis bu tedd bii ci sa bis tedd bii sëriñ bi noogi ñaan nga yàgg fi Ndiaye ak la ko yéene ak ku fi ñëw nax bis bi yàlla na yàlla faj sa aajo sëriñ bi ngërëm li nga am ci sëriñ Seex Mbàkke mu ne ci sa xol bi ne ci yow nga di ko jëfee di ko doxee adduna xam na ko ku la xam-xam na loolu yàlla mi cëral cëral na la yàlla na nga ko muudoo ak say bokk ak say taal ci darajaay Seex Mbàkke sant nan la gërëm nan la sant nan la gërëm nan la yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg sëriñ bi yaakaar nan la du tey taxul nu di ko wax dañu koo gis xam ko ci yow fekke ko loolu moo am te muy dëgg te bu ma ko waxee de defanaa fii ku ma magati ci askan wi amatu ci te dama koy wax waxu nga say rak waxu nga say mag waxu nga say baay waxu nga say doom fu dëggu néew doo fa fanaan doo fa yendu doo fa wax kon nag Ndiaye ah noo ngi lay sant lool yal na nga yàgg taaliba yi taaliba yi yal nañ fi yàgg seen jëf rafet na noo leen di gërëm seenu doxin rafet na noo leen di gërëm yal na yàlla dolli say xiiwal yal na yàlla dolli lépp ba lépp doy am nga yéeneem de te yàlla defal na la ko def ko ci nit ñi ak taalibe yi jërëjëf Njaay bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad di sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy sunu wasila di bunt di sunu bunt ci Cheikh Babacar Thiergane di sunu bunt ci Serigne Cheikh Mbacke di sunu bunt ci Cheikh Mamadou Moustapha di sunu bunt ci Cheikh Ahmadul Khadim euh, ñun de ñu ngi ci ginnaawam fuñ toll ndax aw doxinam wu rafet mu nekk asgor di taalibe di ñu won yàlla musuñu won mukk boppam yàlla rek la ñuy won topp giñ topp ci moom day du ngir àdduna ngir moom doxewut àdduna ñun ñi ko jege xam ko it xam nañ lépp luy àdduna soxlu ko moo tax ñu xam ko bu ko ñëpp xamee woon noonu kenn du xëccoog moom dara ndax soxlawut dara ndax ñun ñi ko yàgg a topp bis yu mel nii lu mu xumb xumb xumb bu mbooloo mi wàññi ko lii ne ci poosam du xam nu mu toll day bittar ñiy poosam jal ci suuf fëggi tànkam xool leen lu mu toll bu bor amee ngeen fay ko ci bu ko amut ngeen jébbal ko nijaamu Moustapha Guèye bu ñu ndigal dabee ñu ñu commencé ji kiy def loolu laajut kenn lu jëm këram ndax li jëm këram yàlla defal na ko ba pare ndax dafa am ngërëm ku laq ngërëmal gaynde ma nag nga yàq ngërëm la Cheikh Moustapha Mbacke laq ngërëm la Sëñ Touba laq yàlla moom làq na ngërëm sëñ Touba kon moom ñi ko xam soxluwuñu ci àdduna dara ngir aw doxinam man de damay wax ne bu ma toogee sax di xelaat doxinu sëñ am di fa ma toog bu may bu samay rongeñ di wàcc duma ko tey ndax lim ma woon ci ak njub ak lim ma woon ci doxinu àdduna wu jëm ci lislaam jëm ci yàlla tax na sëriñ am di ku ko xam rek di nga mën a ànd ak moom a ah, ñun nag ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax kenn ku ne xam na ne de ñun ñi koy topp am na lu mu def ci ñun am na lu mu dindi ci ñun te loolu rek la la doomu aadama bëgg ci njub am koo xam ne nii day dindi lu bon ci yow di def lu baax ci yow loolu sëriñ am defal nañu ko ab toogaayam taxut bu ko defukoon ci ñun duñ ko wax mais dañoo wér ci ne dindi na ci ñun lu mu war a dindi ci ñun def na ci ñun loo xam ne mënuluñ ko sun bopp ci ànd gi ànd ak moom kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm wuutu gi mu wuutu Cheikh Babacar fii ci dëkk bi mate na ko sëkk fees na sëkk palaasam dara manqué wut ci moom wallaahi asim ki dëkk bii ñu toll ak tund wii ñu nekk taxawaay bi fi sëriñ am di taxaw képp ku bëgg lu baax gis nga ne fii rek la mën a fi la mën a yem amul ku ko mën a féete kaw ci lu baax kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan bisab Cheikh Babacar bii yal na ko yàgg yal na ko yàgg taxawe ñun taalibe yi ko topp ak julli yi lu baax ñor bañ fi ñëwit yal nañ ko yàgg teewoo topp ci ginnaawam ñu ngi koy sant bu baax ah di ko gërëm di sant tamit njabootu Cheikh Babacar gépp ndax Cheikh Babacar ñëpp la jaboote ba muy dem ma ba muy dem ñaami na di toppi Cheikh Boubacar Cissé làmbaay dafa lëndëm këris ci keddo mu bëgg leena a ba mu demee ne ba jóge fa it Cheikh Boubacar woo ko sant ko gërëm ko ne ko Babacar njaay li ma yoroon bu dee géej wala dex ngacc nga ko ba mu set te saw mar mandiwut waaye dina dellul say bokk ku boo diggee kuy woote ku tudd Ahmadou amul dàkkantal li nga bëgg moo ko yor bi mu ñëwaatee fii tamit toog di beru di jaamu yàlla loola rek la doon déglu ba ko ay ndongo fekkee fa mu taxaw fa mu toog di jaamu yàlla ñu nuyu ko ne ko ndongali yoonu jaaxal lañ lay laaj mu ne bërit jàkkaarloog ñoom mel ni leera a bàyyi ko ci ñoom ñëw ci moom mu ñëw ci soxnaam suñuy wax Ndeela Njaay muy maamam di waajuru sëñ Cheikh Ndeela mi meññ sëñ bii ne ko Ndeela Njaay kaay ma yéwi la nga dellu ci say bokk bukki ba ma màttoon ba ma réer at yu bari màttaat na ma damay dellu te xaw ma kañ lay dellu si soxna Ndeela ne ko soxna umur xëy di mii nga xam ne mooy sa waajur mag la dinaa ko suul wala mu suul ma walla wala duma ma fi jóge mu door koo ñaanal topp ñooña di leen woon yoonu jaaxal ñuy ànd ba àgg mbàkki kajoor fa la tedd ki fala ame liggéey bii ba lii taxaw tey kooka it moom miit ci yoon woowee rek la jaar ba lii taxaw tey musu koo wàcc xamut waajuram sëriñ Seex Ndee la ndax ndigal kon ku bëgg lu baax rek boo ko toppee di nga am lu baax ñun nag dee rek moo ñuy tàqaleeg moom suñuy waajur la la àndee nag moom rek la ñu àndeek moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yeah.